wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddin bokk ji li di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa tey jaajëfal as Cheikhul Xadim leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan Sëriñ Tuubaa Seex Muhammadul Muntaqa sunu borom yokku ko fan yokku ko ak wér ba lim yéene liggéey lépp mu def ko ci sagawam te lépp it nu ànd ko moom. tey jii la àllarba di fukki fan ak ñaar ci weeru koor gi 1441 hijriya 2020 nu des fii seen seen télévision Lamp ci seen émission Fardul Hayni bi nga xam ne baaxoo nañ leen ko amalal ci koor gi ci bis bu nekk ci waxtu wi mu jëm rekk ci laaral leeral tey jëmm mën a julli bu nekk la ko war ci diineem àtte ya mu xam ko ba man koo jëf-jëfin wu rafet te jëf ju rafet rek la sundoon borom di nangu inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba yàlla ku teey la te du nangu lu dul lu teey ku sell la du nangu lu dul lu sell te jëf nag mënta sell te boroom xamu ko nit mënta rafetal lu mu xamut kon waru gàtt la ci di nit mu jàng diineem la ca mënta ñàkk la lañ ko ca gàll nga xam ne kenn mu mënu ko ca wutu moo koy defar boppam dama la ñu te defar du añ mooy farte jëmm mu xam ko gannaaw eh, Lamp Fall moom Lamp Fall communication moom jullit ñi rek la fi nekkal Sëriñ Tuubaa rek la fi nekkal l'islam la fi nekkal mooy lu nekk rek mu cee jàppale ci indi ay bind ngir jàppale ci mbooloo mi loolu waral émission bi ci biir koor gi ñu ñëw na kon tey ci buntub jullig ajjuma jullig ajjuma waru gar la wu yàlla gàll ci bépp jullit boo wax na sart ya daja na ca moom yan sart ba ci njëkk mooy gannaaw bu doonee ab jullit ba nopp mu doon ab jullit ku jullit dara yi lislaam waragu ko ñaari mooy mu doon góor doon as gor te amum xel te jot gént mooy te mu meseur ci dëkk te dëkk ci dëkk bi te amug wér yooyu danga ci dégg yeneen suñ ne mu dib jullit kon ku dul ab jullit waru ko suñ ne mu doon góor nga dégg ci ne kon jigéen julli waru ko suñ ne ma xel nga dégg ci ne ab dof julli ajuma waru ko suñ ne mu doon ko jot gént muy ku mëseer muy gone gu ma soog julli ajuma waru ko waaye su ko defee baax na su ne ab jaam it waru ko ndax arto yooyu mays na koy rootal ndax gannaaw jaam amatut mu dëkk ci dëkk bi kon nga dégg ci ne kon gan ab doxandéem julli ajuma waru ko su ne nag mooy ki wàcc dëkk te naru faam lu ma ñetti fan yu mat ñeenti fan yu mat kooku la ñu gan waaye su fa naree am lu man ñeenti fan jëm kaw nag su dekkatul gan kooko julli ajuma da koy war ni mu war ñëpp ndax gan mooy wàññi julli te kay nar xas xas nar a fan ci ci barab moo tax kooku day matal julli ajuma mii nekk képp ku mu war koo xam ne sàtt yi ma wax daje na ci yow te ki war nag mu lànk defu ko te teliwu ko ngant taxul te tuubu ko ba faatu ca wala bi laay taalaa day tàbbi sawara loolu sama waxi bopp de wax yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla musal ci sawara ni ñu ko def ma da ngay nekk ba waxtu waxtu wa jage ma xam ne waxtu wa soreetut nga door jóg sangu julli dañ koy sangul kenn du ko jàppal julli ajuma dee su ko jàppal dañ koy sangul da nga sangu cangaay lu niroog cangaayal bu mooy lañ jàngale woon lu ko tal cangaayal janaba mooy yéene ja rek ak tuuti jëf yéene ja mooy bu dee sangu farat da nga yéene sangu faratam ba nga yéen yëkkati toj bu dee nag julli ajoon da nga yéene jëf sun jëf luñ ñu sunnaal ci yow su dee cangaayal farata soo jàpp ba soo jàpp ba tànk yi des ba sangu mujj tànk bu dee jàpp bu dee julli bu dee cangaayal ajuma nag moom ci njàpp ngay raxasaali tànk yi loolu doo la ñu wutee loolu daal nag mooy ni ñu sangu farata ñoo yam képp mujj ga tànk dañ ko sopp ci farata waaye boo ko defoo nit boo ko boo ko defutoon maanaam raxasal ko njàpp mooy te te ca ngay liwér ba tey julli ajuma itam ba tey soo soo raxasal soo raxasal yu tànk ci njàpp mooy tam mujj ko ba tey yaxul ca ngay la dara soo néegi waxtu jege nag nga sangu cangaay lu mel noonu mu wax sol lu weex lu weex soo ko amee dañoo xam ne julli ka it lu yees lañ ca taamu lu yees ak donte lu ñuul la julli gi ajjuma lu weex lañ ca taamu donte lu màggat la kon ajjuma soo amee lu weex moo gën soo ko amul nag leneen loo am ca tamu lab baax na balaa boo nag balaa ngaa dem na nga war sa kawar kawar yi ñu war a wut yëpp kawar yi poqtaan war say mustaas mooy kawar yi ci lex yeek yooyu wàññi say mustaas musta li ñu tuddee ay wàññi say naanu ay naanu may kawar yi na ci eh, tim tuñ tuñum kaw mi loolu ñu tuddee ay naanu nga wàññi ko sikkim na deesu ko laal moom sikkim deesu ko wat deesu ko wàññi lawi say way taamu nañ ko ca peñe sa bopp ba mu maase wala nga watu doo ca baax na ba la neexee watu bu la neexee peñe ko ba ba ba maase yëpp dañ ko sob soo amee lu weex nga sol ko soo amul lu weex na leen loom tam la baax na nga sol ko te xeeñu laj koloñ dañ ko caa taamu xeeñu laj koloñ ndax malaaka yi dañuy tax ci buntu jumaa ji di bind tur ñuy julli si te malaaka daa bëgg xet gu neex te gannaaw da ngay jën ci mbooloo it waroo am xet gu naqari deen nag mbooloo di leen kon da nga moo tax xeeñu la ko am solo nga laal parfum kon su fekkee sa kër soriwul nga dox sa tànk moo gën war gi boo soriwul ngir dox ci ngay mën a toroxloo soo àggee ngay jiite sa tànk ndeyjoor boo dugg jumaa sa ndeyjoor ngay jiite sa tànk ndeyjoor mooy jiitu nga ne bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah li abaab rahmatika bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah li abwaab rahmatik nga daal di sa tànku ndeyjoor daal di tàbbi ci jàkka ji te dem nag ba sës ca sàppe sang fa fekk te bul dëngal itam seen sàppe na nga ci na dugg ci sàppe taxaw ci taxawin wu jub sàppe sa jiitu moo ci gën soo ci xajoo sa ca topp soo ci xajoo sa ca topp ba kero sa ca mujj su fekkee imaam ñëwagut soo asee bala ngaa toog nga julli ñaari rakaa mbaalu la soob ñaari rakaa mbaalu ko ëpp ñaaraaka yu njëkk yi moom da nga koy julli ngir nuyoo ko jàkk ji dañuy tuddee tahiyatul masjid sunna la ceeb ab jullit saa bu tàbbee ci jàkka balaa toog mu julli ñaaraaka nuyoo ko jàkk ji soo noppee na loo ci bëgg a sësi ci naafile yeneen yoo xam ne yaa tàmmut sañ ko sañ ko sësal li fa imaam di ñëw rek waaye sim nañ nag li ñenn ñi def ñëw julli sa say naafile ba toog suñ noddee noddi nga njëkk ñuy ngay jugaat di julliwaat daa ñoo xam am ñoo jàpp ne faw dañ faa war a julli ñu bari dañu bu ñu noddee noddi njëkk ñu daal ne wañ ñokket ñu bari dañu ko def ne ñokket di naafilewaat loolu dañ koo sib dañ ko sib ndax faw amul genn julli guñ fa digle su fekkee xasoon nga def sa sa nuyoo jàkk ba noppi rek def say naafile ba toog toogal rek nag ndég julli farata ga sim nañ nga di tëdd ca jàkk ja mbaa nga defa tàllal say tànk dañ ko sib mbaa nga fay waxtaan waxtaanu àdduna loolu wala nga sa rawatina nga defa nelaw loolu dañ ko sib ku ñëw ci biir noddu gi mbaa gannaaw noddu gi nag mën naa julli moom ka kañ kañ ko sib mooy kañ ñëwoon julli ba toog ba noppi bañ nodd muy jógaat waaye ki ñëw ci biir julli gi mën naa taxaw bañ sa ba nodd gi daan mu julli ka ñëw gën a nodd gi mën naa julli ndegem imaam ñëw na nag ba fekk ngay fekk imaam dañuy fekk na ngay julli kon bul ko dog da ngay àggale sa julli waaye bañ nañu nag ngay julli ci biir xutba bi imaam maa bi nga asee fekkee ne imaam di xutba ngay julli boo asee da ngaa war toog ci ngiru Malik mi loolu lañ ci digle su imaam di xutba soo agsee toogal bul la waxtaan ci biir xutba it dafay dafay xaraam wala ci biir jàkka waxtaan ci biir ci biir xutba dañ dañ dañ ko dañ dañ dañ dafa xaraam waaye bu dee waxtaan ci biir jàkka ji ne lu jiitu loola mbaa gannaaw lu dañ ko sib moom kon yéen bëgg ko ne ci jàkka mu ne ci lu am njariñ jàng alxuraan da nga jàng xasaayit wala ngay tudd yàlla te luñ ci doon nag bul kaweel sa kàddu da nga koy wax ndànk bala ngaa yàqal kenn ku ne ci sa wet dafa ndànk ku ne ci sa di teewlu magu yàlla gi di xalam ko wax ca kaw da ko da koy jaxase da ko yàqal kii wut di it mbaa mu ne ci lu muy sikar wax ca kaw da koy yàqal kon loo ceele da koy wax ndànk mu yam ci yow rek su imaam xasee ñëw nag nga bàyyi lépp déglu ko xool ko su xasee yëg ci minbar bi na jàkkaloon di ko xool soo doon jàng alxuraan daggal njàng ma soo doon wird daggal wirda soo doon tudd yàlla lépp tax ko teg ko imaam te di ko déglu <coughs> doonte <coughs> donte xamoo la may wax donte arab lay wax te déggu arab te déglu ko rek bu fekkee fa muy nekk fa mu nekk seen nekkul foo ko ci gisee ngay xool wet gam féete rek di ko bàyyi xel loolu dañ ko sopp eh, wax ci biir xutba na dafa xaram jégge su imaam di xutba it bëgguñ ko imaam xasee di xutba boo ñëwee foo njëkk yam sàppe sa yam fa yamal foofa toogal foofa ni ko noonu romb ci kanam koy julli dañ ko sib maanaam ci biir jàkka ji nga romb ci kanam koy julli mooy tam bañ nañ ko lool julli gi du wér lu dul muy ci biir jumaa ajjuma fu ko jullee futul jumaa du wér suñ ko jullee ci pénc wérut suñ ko jullee feneen fu dul ci jumaa rek lañ tuddee jumaa ci lay wére lu wala àtteeb jumaa àtte jumaa mooy jumaa ji fees na ba sàppee génn di law nag donte law lawin lu mat kilomètre mbaa ñaari kilomètre ca ca ca àll ba it du tee ci àtte jumaa lañ koy lañ koy lañ koy jàppee ndax ci jumaa jël soxi ko ba foofa bul jullee ci diggante keno yi saa su ndax diggante boobu nañ koy bàyyee dàll yi ak seytaan nañ ko bàyyee seytaan ak dàll yi muy diggante keno yi lu dul daa fees du fekk dangaa fees ba xëyee ci sàpp yi nag mën nga fa jullee su njulee ba noppi sooy génn sa tànku càmmoñ ngay jiital ba ngay dugg ne wane sa ndeyjoor ngay jiital booy génn sa tànku càmmoñ ngay ngay jiital bari waxaat bismillah wasalaatu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba fadlika ba ngay dugg abwaaba rahmatika la woon bi ngay génn abwaaba fadlika bismillah wasalaatu wasalaam ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba fadlika wabtaxoo min fadlillah la suñ ba waxoon su suñ sëmbalti ajuma dem leen sàkku ci ngeneel yàlla moo tax fadlu nga waaw min fadlillah moo tax foofu fadlullahi nga ñaan foofu fadlullahi nag foofu wërsëg lay teg <coughs> su defee nag gone bu dul fo sopp nañ mu julli ji ndax dañu bëgg mu tem tel ko tàmm ba bu ko waree mu bañ ko sàggane jigéen ju màgget ba xubi daas ba ñaaw lool ba kenn soxlaatu ko te sol lu ñaaw te bañ a xeeñu xet gu neex mën naa julli ji waaye sopp nañ bu demee nag mu mu dem ca gannaaw mbooloom ci gannaaw góor ña te bañ jaxasoo jigéen ñu ndaw dañ daa bañ mu julli waaye léegi na bañeetuñ ko ndax bu njëkk ba waxee na jàkk lenn lay doon gone ak jigéen ñi bokk fi nekk waaye gannaaw léegi na jàkk yi jumaa yi léegi dañ cee parawal jigéen ñi seen place bopp ko léegi jigéen ñëpp mën a jigéen ñëpp mën a julli ji muy ndaw muy mag waaye lañ ca may ne mooy bu mu tuwaaletu may li koy dem marché mbaa koy dem ngénte bu mu tuwaaletu na sol col mu jot muuru ba daj bañ a xeeñoo parfum bañ def ay capp seen yooyu bu ko def te nañ ko bàyyee ngénte yàgg yëf ya ta ta ta ta moytu dem jàkk di di di di di ndax fitna lañ ca bañ toll mën na jur fitna tamit dañ am moytoo jaxasoo góor ñi ci bunt yi suñ sëmënee nañ gaaw njëkk génn balaa góor ñi génn mbaa ñu bàyyi ba góor ñi génn ba jeex ñoom ñu doon génn su ko dee kon day muur loolu tenq ak xar kanamam loolu ci sàtt yii nag bu julli ji ku bëgg a tukki ci bisub àjjuma it te julli àjjuma war ko ma maanaam fajar bu xasee fenk fenk la ci fekk la ci dëkk ta dëkk ba am jumaa te julli ja àjjuma wala sëñetoo génn ci ci kon soo naree tukki bisu àjjuma da ngay génn sa fajar jot ci bisu àjjuma bi waaye bul fa xajar fajar fekk nag sëñetoo génn te julli wa tisbaar ba noppi julli àjjuma ba noppi wala bokk fa nga jëm daa am jumaa te wóonal da nga jiitu da nga àgg balaa waxtu jumaa du jot kon maa nekk su loo amul du sañ a génn lu dul jul dafa julli ajuma ba noppi ku am ngànt na ba tax demul ci jumaa ja day bàyyi ba waa jumaa ju julli ba sëlmal mu dooru mu jot julli loolu dañ ko sopp waaye su fekkoon waxtu daa jot mu julli tisbaar teew teew dana wér waaye dañoo sopp na bay ba waajumaa ja sëmal mu doon julli tisbaaram moom fi mu ne kon loolu dañu yóbbu ci ñu wax lan mooy ngànte ajuma kon ngànte yi tax boo julli jiwul ajuma doom am bàkkaar ba ci njëkk mooy tawat dangaa tawat tawat ju metti joo xam ne mënta ànd ak julli ji ajuma su sañ ngaa bañ a julli ji mbaa dangaa tawat leb jege ñaale mooy daam sa mbokk mu la jege mu wér di nga di ko taxaw te yow doo nga yaa boo fa nekkul ma naa sonn ba tey ngantal ngàntal julli ji la kon tawat wala tawat leb jege ñaale ngànt la julli ajuma mbaa dangaa ragal lor ci yoon wi fii ak jumaa ji kat am na ay agresseurs yu nekk ci diggante bi soo demee dañ la agressé dañ dogal agressé la mbaa ñu nangu saalal mbaa sax sa kër mu amul sécurité boo julli ji kat mën la gannaaw sàcc sa kër mbaa ñu dajj ko mbaa ñu yàqal la mbaa ñu taal ko loolu boo sañ ngaa ba ñu julli ji ajjuma ngir loola mbaa da nga ami bor te wóor na soo dee da fa dajee ki nga ameel bor te mën na laa pañe la bala nga fi jóg da nga ma fay mbaam yóbbu la police ba tey sañ ngaa ba ñu julli ji ngir loola ni ko noonu euh, waaye nag loolu dañ ca sàtt fekk mu ñàkk fekk maanaam fekk amul mu faye fekk fekk am mu faye ndaa war a julli ji moom bu ñu bu ñu ko jàppee mu mu mu mu fay la mu fay la mameele bokk na ci it wala am ngiroo dafa tawa tawa taw ba nga sa diggante kër sa sa jumaa sa diggante kër jumaa ji mbooloo ngir la ban la boo xam ne ku fa jaar da ngay ngiro suba sañ gaabeen julli ji ngir ngir walla wala taw bu bari lool bu mënee sa koronu taw bu tar lool mooy tam mën naa tey julli jaa juma walla ki lekk laaj laaj laaj xet gi dafa naqari ku ko lekk te mun te dindi xet gi bu ñu dem ci jumaa ja ndax dañuy bañ mu lor xet gi ci ñi muy dendal wala mu rafle ko xam ne amul dara lum sol loolu nag yaakaar naa amutut fi ne ku amul dara dara dara lum sol kookee julli ajuma da koy wàcc kon nag julli ga mënta wér loolu ci imaam imaam yi raatib ju dëkk ci dëkk bi ak ña ñëw julli si doon mbooloo mbooloom lu mu néew néew néew na mu na mat fukki nit ak ñaar julli ajjuma su fekkente ne nit fukki nit a ko fekk mbaa fukki nit ak benn julli ko du wér ndax matul julli mbooloo matul julli kon imaam dañ ca sart bu dee ci julli ajjuma ci ngirum Malik faaw day mot fukki nit ñaar yoo xam dañuy fekk xutba bu fekk julli ga soo julli ajjuma dooru daa ñëw na ajjuma lu ma fukki nit donc nga fa teew mbaa fukki nit benn fukki fukki ñaari matul kon imaam bu mu xutba ne leen jiite tisbaan ñeenti kon du wér du ci teewu mbooloo ma xam dañuy fekk xutba ba fekke julli ga kon loolu mooy jullig ajjuma ak li ci li ci topp li li ci aju ñu ñëw nag ci jullig tukki kuy tukki may nañ ko mu wàññi ak julleem def ko ñaari rakka mu julli ñeent rakka yi tisbaar ak takkusaan ak gee da koy wàññi di ko julli ñaari rakka loolu yolomal la gu ko lislaam may loolu sunna la wax dañ ci saat ne tukki ba mat distance bi bi tax nga saña nga saña wàññi julli mooy mat lu néew ne soixante-douze kaw su dee lu ko yees na des ca wàññi juróom-ñaar fukki kilomètre ak benn saat nañ ca ñeent saat saat nañ ci ñeenti saat moo di dem nga suba kat damay tukki bëgg daa tàmbalee wàññi tey fi nga nekk ci sa kër déedéet ndax fekk nga sóobu ci dem nga man mooy départ nga sa kër su dee ila ila Tuuba bi dem nga ba weesu e, fi ñuy faye weesu nga gise bi fay nga ba génn gise bi nag man ngaa tàmbalee wàññi mooy dem gi man li njëkk mooy dem gi day mat lool mooy dem gi rek waxuñu dem del si mat 70 kilomètres mooy dem gi képp day mu 70 kilomètres doo ci li ma lay del gi kon mu mat dem gi mat loolu mooy mooy bu njëkk bi sartu ñaareel mooy fekk nga tu nga dugg ci tukki bi ba noppi mooy départ nga ba ba jóge sa kër ñetteel bi mooy ma ma maanaam ñaareel mooy nga mooy mooy nga dog ca mooy dog nga ci dem gi moom ba noppi ñetteel bi mooy xaraf nga ca mooy tàmbali nga dem génn nga sa kër ñenteel mooy tukki ba doon bu dagan maanaam fekkee da ngay tukki ngir mooy yàlla mbaa defee loo xaraam mbaa foyi deesu ca wàññi dangaa dem Dakar ngir seeraane ab match képp sañoo wàññi dangaa dem ngir dem ngir jëm ci ab boîte de nuit caaxaane mooy yàlla walla baali suba sañoo sañoo wàññi kon na ci kon tukki bi doon tukki bu dagan kuy tukki ngir mooy yàlla wala ngir fo wala da dafa dafay génn ngir dafa dogoog ñaari waajuram kooku de du lam lam lam nekk bakkaar la cëg ma yàlla nekk ma tax suñu wàññi fi nga tàmbali wàññi gi mooy bu dee da dëkk ci biir dëkk bu mag da ngay nekk ba wees weesu tool yi boobu dëkk bu dee fii bu dee man Tuubaa la nekk fi laa koy misaal man ni ma la bu dee Ila Tuubaa boo xasee weesu gise bi rek xam soo weesu soo génnee gise bi am na foofu jàkk xam ne kii julli yéen mën naa tax foofu julli su mën ngaa wàññi mën ngaa tàmbali foofu wàññi soo da ngaa jaar ci route nationale bu bu njëkk bi numéro 1 bi soo weesoo fi ñuy jaayee karo yi dañoo bañ a tudd tur mu nekk publicité fi ñuy jaayee karo soo ko weesoo rek wala wala wala jàkka jooju nga xam ne ne ci xam nga am na ci buntam jàkka jàkka ju mu fee def ci wetu station bi foofu ku fay ku fa wàcc di jël mën ngaa wàññee foofu mën nga tàmbalee kon foofu wàññi su ko defee nag fa tàmbale fa wàññi nga tàmbalee fa la yem maanaam fooy booy dem fa ngay tàmbalee wàññi soo defee ba sa fi fi nga tàmbalee matale julli ñeent rakk yi képp nag lañuy ñuy wàññi timis dee su ko wàññi suba dee ko wàññi su ko defee ku fa tàmbalee kon tukki ba ñibbi su fekkee da faat ak julli ci tukki bi dem ba ñibbi door koy fay nag ba tey da nga ko wàññi da ngaa tukki war a wàññi faat fay julli soo ñibbisee di ko fay ba tey danga koy fay ci wàññi ba tey boo ba tey boo faatee ay julli fi nga dëkk tukki ba dem ba tukki di ko fay danga koy matal kon julli noo ko faatee na nga koy faye ya nga faat ci tukki fay ko ci wàññi ya nga faat ci dëkk fay ko ci matal. ni ko noonu ku wàcc fenn ci dëkk yi fas fa yenee sax lu ma ñeent fan yu mat sëkk woon nal neewoon da nga fa fan yu mat sëkk dootoo wàññi da ngay matal ñeent fan yu la wóor waaye su fekkee da nga yokk da ñëw ko ngir am am signature boo lijjanti wala kayit boo rek man a lijjanti suba mën naa lijjanti gannaaw suba boo fa doon am weer it da ngay wàññi bis nga jàpp ne suba mu lijjanti ko bis tane jàpp ne mu lijjanti ko da ngay wàññi mën nga fa am am weer mbaa sax lu ko ëpp lépp ngay wàññi rek waaye su fekkee am nga ñeenti fan yu la wóor nag moom yoo xam koy sax moom da ngay matal doo wàññi dëkk boo am soxna doo fa wàññi foo am soxna doo wàññi foo am kër yi doo fa wàññi ndax foofa dañu ko yemale foo dëkk rek sib nañu nag kuy tukki roy ci kuy sax mbaa kuy sax ku sax roy ci kuy tukki doon suñu ko defee dana wéer waaye sib nañ ko nag waaye bi jiitu lañ gën a sib nag bi jiitu lañ gën a sib mooy kii tukki war a wàññi dero ci koy matal kon so ndax soo royee ci koy matal matal ga dalay war ne ko rogal ci dootu sañ sañ a wàññi te wàññi mooy mooy sa sunu yow ba jës mottali mooy kii tukki wàññi ndax kii tukki moom kii tukki jiite ndax moom jiite moom ñaataaka matal day sëlmal rek su sëlmalee ñeen ñenn ñi kenn ku nekk jug mottali sa ñaataaka yàlla dese loolaa tane kon loolu bokk na ci ñemata bàyyi xel kon loolu mooy ay looy la ay ci jullit tukki su ko defee na kon euh, dañu teg foofu suñu baaraam incha allah suñ delsee ñëw ci li ci topp suñ delsee incha allah bu subaa ñëw ci julleek booleek yeneen julli yi ci topp kon ñu ñëwal leen ci ci euh, ñaanuk bis bi ñaan wi sopp nañ gannaaw julli farata gu nekk nga wax benn yoon lii allahumma inni as'aluka imaanan laa yartaddu wa naiman laa yanfadu wa xurrata ayn laa tanqatiu wa murafaqata nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila xuldika ma baamu ko allahumma inni asalu asaluka imanan la imanan la yartaddu wa naiman la yanfaddu wa xurrata aynin la tanqati'u wa murafaqata nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi fi fi a'la jannati xuldika fi a'la jannati xuldika nga wax ko benn yoon gannaaw julli faatu gu nekk daa tax faatuwaale ngëm yàlla insha allah daa tax tabbi aljanna insha allah ñëw na kon xadiisu bis jëlee nañ ci euh, yonent bi sallallahu wax ne ittaqu zulma fa innahu zulumatun yawmal qiyamati wattaqu shuhha fi no ahlaka man kaana xablakum xaalis mi ko jóge jaabir muslim itam génne na ko dee leen moytu tooñ ndax tooñ kat ay lëndam rekk lay doon bis penc te ngeen moytu itam nay ak bëgge nay ak bëgge moo alag ña leen jiitu woon kon nay ab jullit du nay sala sa nee na ku tabe ku jege yàlla la <coughs> ku jege nit ñi la ku jege àjjana ku sori sawara la ku nay nag ku nay ku sori yàlla la ku sori nit ñi la ku sori àjjana waaye ku jege ku jege sawara la kon nay mat ëpp naa def waaye tooñ it ëpp naa def suñu war daa wax ne kuy tooñ du mucc kuy fayu du ñoŋ daana wax kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu kon soo kon tooñ ak fayu dara amu ci solo kon teeg suñu baram foofu incha allah jox leen dig daje incha allah ci suba suba ci yi seen télévision Lamp ci beneen numéro ñaan li gën ci noonu yàlla na ko suñu bon defal dëppale ko li nu gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa